assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bokkum jullit daa am benn xissa bu ma liir ci internet bi mu amal ma solo lool ma def ci ay jàngat ma xalaatoon ñëw nettaliwaat la xissa bi yow ba noppi wax la samay jàngat nu bokk jariñu insha allahu taala xissa bi nii la tëddee mbokkum jullit nee na benn xale daa génnee ci këram jëm ci barab bi mu demee ba ci yoon bi mu gis ak góor gu mag gu toog ci barab góor goo xam ni soo ko gisee rek da xam ne kii ku ñàkk la ku soxla ndimbal la xale bi am yéene pour dimbale góor gi ci dara li nekk ci poosam mu dox jëm ci góor gi ba yegg daal di koy nuyu asalaamaaleykum wa rahmatullah làmbu ay poosam bëgg a dimbale góor gi bi mu làmbee poos bi fekk fa dara mu làmb poos ba ca des fekk fa dara ndekete yoo xaalisam ma ngi ko fàtte ca kër ga daa génne te génnaalewul xaalis mu daal ne ko ah baay man de maa ngi jéggalu dama amoon yéenay dimbale la fi sabilillah waaye nag ndeke sama xaalis maa ngi ko bàyyi kër ga ma di la ñaan rek baay nga jéggal ma te xaar ma tuuti ma dem kër ga jëli sama xaalis man a mottali sama yéene ci yow dimbale ma rek baay ma dem te ñëw bi mu wàññi koo bëgg a dem euh, góor gi téye ci loxoom ni ko ah jërëtul ngay dem kër ga baax na yow kay sarax nga ma ba noppi defal nga ma lu rëy loo xam ne kenn mësuma ko defal ay doom jërëjëf jërëjëf doom xale bi ne ko bàyyi man defaguma dara xaaral ma dem kër ga te ñëw lan laa la defal góor gi ni ko ba ma juddoo ba tey mësuma dégg ku ni ma bàyyi yow yaa ma njëkk a wax baay ci àdduna ndax man yàlla dogal na oma doom te ñi may dajal ci mbedd mi duñ ma wax baay doonte mat naa leen ko kon doom baat bii nga ma wax muy baay lim def sama xol bi day yàlla rek a ko xam bëgg naa lool lii nga ma wax day kàddu gi moo ma gënal xaalis bëri ngay jëli jërëjëf doom daa di koy ñaanal ñaan gu rëy lool nag lii mooy xissa bi mbokkoom jullit jàngat bu njëkk bi mooy ndekete ndekkete ki ñu mat baay ñu di ko wax bàyyi ndeysaan ndekete danañ def ci moom lu rëy rëy loo xam ne yëguñ ko sax ba ki ñu mat yaay ki ñu mat tanta ak ki ñu mat mag ndekete kàddu la gu neex ndeysaan ci xol te sax ñun xamuñu loolu jàngat bi nag mbokkoom jullit am naa ci benn xadis ak euh, laayab alquran ak beneen xadis bu leeral laay yi ma wax xadis bu njëkk bi mooy xadisu abu hurayrata yàlla na ko yàlla gërëm buxaari ak muslim solo xadis bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ni wal kalimatu tayyibatu sadaqatun nee na kàddu gu neex gu teey gu dal sarax la maanaam kàddu gu neex gi ngay wax sa mbokkum jullit mu dugg ci xolom yàlla dala koy fay comme dangaa saraxe allahu akbar kon kàdduk yonent bi feddaliku na ci xissa bi ay waay mbokkum jullit ndekete kàddu yi ñuy wax sunuy baay yi nu mat baay yi nu mat yaay yi nu mat tànt ñu di leen koy wax ñu koy dégg ndeke ndeysaan sarax la bu rëy te yëguñu ko ndekete day bégal doomu aadama bi te bëggal sa mbokkum jullit bokk na ci jëf yi gënal yàlla subhanahu wa taala ci àdduna kon mbokkum jullit fu ñu gisatee sunu moroomu baay nañ ko wax baay fu ñu gisee te suñ moroomu yaay nañ ko wax yaay ba sunu mag kenn ku ci nekk ñu jox ko cër bi mu moom loolu day am na solo lool mbokkum jullit te ndeysaan yëguñu sax di ndeke lu am solo la yàlla nee na alam tara kayfa daraba allahu mathalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyiba asluha thabitun wa far'uha fi sama tu'ti ukulaha kulla xiinin bi idni rabbiha wa yadribu allahu al amthala linnaasi لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار الله أكبر yàlla nee na yow yonent bi xanaa xamuloo ni misaal bi yàlla joxe ci kaddu gu rafet kaddu gu teey kaddu gu neex doonte nag kaddu gi yàlla lim ci jublu mooy laa ilaha illa allah mooy kaddu tawxid yonent bi yàlla mu ne ko yonent bi xanaa xamoo ni kàddu gu neex gu tee gu dal maa ngi koy misaale comme garab goo xam ne dafa meññ lool meññent bi ñépp bëgg ko ci àdduna laay bi nag yàlla bi mu koy wax kàdd gu neex lim ci jublu mooy laa ilaha illa allah waaye lu tax yàlla bëgg a wax laa ilaha illa allah jublu ci kàdd gu neex loolu mooy baatub laa ilaha illa allah day jox yàlla cëram muy ban cër muy cërub kenn gi yàlla doon kenn cërub jaamu gin war a jaamu yàlla sellal ko ngir yàlla cër boobu noonu ñu jox yàlla moo tax mu tuddee cër bi al kalimatu tayyiba kon kàdd gu neex ndekete am na solo yàlla mu ni kàdd gu neex googi maa ngi koy misaale comme garab gu rëy bu mag boo xam ne dafa am ay meññent yoo xam ne adduna si sépp ko soxla nee na garab gi nag datt bi duut duutu ci suuf ba nga xam ne dara mënu ko daaneel mën ngaa toog ci suuf te du masa daanu mukk am nga sécurité boo toogee ci garab gi ay caram nag ni sëyi jëm ci kaw asamaan bari lool ker ga bari meññante yu bari lool moom kàddu gu neex noonu la mel yàlla mu ñu noonu la mel allahu akbar mën ngaa féexlu ci suuf mën ngaa lekk ci meññante mi moom kàddu gu neex kon ndeke kàddu gu neex dafa doon garab goo xam ne daf lay keral di la jox ngay lekk ba regg te doo am benn jafe-jafe allahu akbar yàlla mu ñu saa bëggee watt ci garab gi da nga watt lekk ba regg loolu nag li muy tekki mooy mbokkum jullit kàddu gu neex gi nga wax sa mbokk jullit daf lay jariñ foo mën a nekk ci kër gu àdduna ba keroog amal xiyaam waaye nag yàlla mu ne kàddu gu ñaaw day kàddu gu ñaaw day daa mel na garab goo xam ne garab gu bon la gu xeeñ gu bari ay dëkk nekk ci suuf waaye nag dëgërul boo ca toogee bis bu jot mën naa daanu sa kaw te doo ci jariñu benn yoon loolu mooy kàddu gu naqari allahu akbar kon ko jullit lekk kàddu gu neex day boroom bi jox na ko cër ba misaale ko garab gu rëy goo xam ne day meññi di la meññal di la keral yal nañu ko yàlla yombalal moom kàddu gu neex sëriñ bi xadis bi leeral wax ci ba tey abu hurayrata ci lañ ko jëlee buxaari ak muslim solo ko yonent bi nee na doomu aadama bi mën naa wax benn kàddu gu benn kàddu gu ndaw du ci bàyyi sax xel ci kàddu gi te kàddu ga ndekete yàlla gërëm na ko nee na yàlla ci kàddu googa mu yëkkatil la say daraja adduna ak alaxira ba noppi kàddu ga wammat la ba tàbbal la biir aljanna bokkum jullit wallahi ndeysaan mën ngaa gis sa moroomu baay boo xam ne ku yàgg ci lislaam la sa moromu baay bu yàgg ci alquranul karim wala sa moromu yaay ba sa moromu mag bu bu bëgg yàlla nga ñëw jox ko cërub baay ci kàddu googu wallahi yàlla mën na la ci yëkkatil say daraja yërëm la ci tàbbal la ci aljanna donte kàddu googu nag lu bari la mën a firi waaye lii ci la bokk jox sa cër jox sa moromu baay cëru baay jox sa moromu yaay cëru yaay yàlla mën na la ci yëkkatil ay daraja yu kawe yoo xam ne yéegoo ko te doo ci sax bàyyi xel waaye nag yàlla mu kàddu gu naqari nit man maanaam nit mën na wax benn kàddu gu naw du ci bàyyi sax xel kàddu ga naqari na sunu borom tabaraka wa taala ba tax kàddu googa wommat waa ji ba tàbbal ko biir jahannama yàlla ñu ci yàlla musal kon mbokkum jullit dañuy bàyyi xel ci ñi ñuy jëflanteel bari na léegoo-léeg sa mbokkum jullit toog sax di waxtaan ba àggal gëmoo kàddu gi ngeen ko waxu dëgg mm-hmm. loolu du kàddu gu neex donte jàpp nga ni li mu wax amul sax fexeel ba waxtaan ak moom ba convaincre ko ba indi ko ci dëgg te doo ko méttital ci kàddu kon yonent bi nee na al kalimatu tayyibatu sadaqatun kàddu gu neex sarax la mbokkum jullit gannaaw maag yow yam amuñu benn dërëm buñ saraxee nañuy rafetal suñuy kàddu ci sunuy bokki jullit yàlla nee na wa qulu linnaasi xusnan kon dañuy wax ci doomu aadama yi du rafet tey jëflanteeg ñoom kàddu gu rafet ak jëflante bu rafet lii moo doon xissa bi samay jàngat lii la ci mbokkum jullit yal na fekk ñu bokk jëriñu ñun ñëpp ci kàddu gi mbokk mi yàlla nañu borom bi tabaraka wa taala yombal kàddu gu rafet te nangul ñu suñuy jëf ak suñuy góorgóorlu boole ñu saxal ci siraatal wa wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu